teelu fi ci bisri TV rawati suñu jotaay bu mag bi di pencu xam-xam tay nak ñu am tay téwaat ci jotaay bi defaat waxtaan ngir gëna léral ak yaatal rek waye lepp nak day waat ci njàngaleeg Cheikhul Khadim na jambaram bi di mam Cheikh Ibrahima Fall. tay nak ñu am tay euh, dalal fi suñu jëwriñ di borom xam-xam di alaaji jibi sey fasiyene waxtaan ak mom ci mam Cheikh Ibrahima Fall ana naka lañuy def ba jëriñu ci mom su ko defee balaa ñoo dugg ci lolu dañ koy bayyi mu nuyo ci péncum xam-xam nuyoo mbokk talibé yi di télu ñu soga tabbi ci jotaay bi bisimilah alaaji bi auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim asalaatu wasalaam ala sayidina muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa asxaabihi wa qadimihi wa man tabium bi ixsaanin ila yawmi diin kon mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax ci seen jataay bu tedd bi di pencum xam-xam à travers nag Bichri TV di siyaare mbooleem ñi jàkkaarloog ñun di ñu topp ci jataay bi te ñaan suñu borom defal ñu tawféex jubal suñu xel jubal suñu làmmiñ ba lépp luñ fi wax rek mu dëppook luy jariñ di nuyu di ziare bu baax suñu jëwriñ Yaxya Bari ñu ngi lay sant bu baax nag ci dalal bi di ñaan rek yéene bi nga am ba xeemeem ñu bokk jataay bi yàlla na yàlla jottali ko mboolem ñuy topp waxtaan wi di ñaanal xalifatul am li tarixatil muridiya sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ak mbooleem xalifa yi tey ñaan suñu borom it yéene yi ñu am ci taxawu seen liggéey maam yàlla defal leen ci ba defal leen ci lu fokk seen jort eh, ci barke alxuraan barkeb Cheikhul Xadim barkeb Cheikh Moussa su ko defee nag yàlla yàlla jubal làmmiñ bi rek ba nga xam ne laaj it nañ ko jekku ndax eh, ñi ngi fas yéene waxtaane ku mat a waxtaane bi maam Chérifou Fall dëgg la ndax yi lislaam la yi yoon wi la kon ku mat a la ku mat a waxtaane la yàlla nañ ci yàlla defal tawfiix amiin ak sëñ Tuubaa ak saa sëñ nuyoo yi am na solo su ko defee jotaay bi péncum xam-xam la ñaare dañuy def kuñ fi dalal muy boroom xam-xam rek balaa ñoo dugg ci biir jotaay bi waxtaan ci jëmmi xam-xam ndax li tax mooy nit ki fim ganee ba keroog mu fi bàyyi ko du jóg ci di sàkku xam-xam ndax xam-xam muy gindi jaam sëñ Tuubaa wax na ko al ilmu nuurun yastadilu alal xaqaayiq mu ne xam-xam mooy lumière bi lay gindi ci dëgg-dëgg mbir yi mooy lay réalités mu dellu wax ne tamit képp ku dox sa digganteeg xam-xam dox na sa digganteeg yiw dox na sa digganteeg mucc te mooy xalifa ak iblis ci kaw suuf kon nag lay tax jaamu yàlla yi gën a gindiku gën a xam bu baax a baax li ñuy jëf waaye gën a gindikuwaat ci xam fi ñuy jaar loolu lu mat di biral la kon bu ko defee sëñ ji bi ñoo bëggoon nga nuyoog mbokk taalibe yi ci péncum xam-xam ak wax ñu jëmmi xam-xam ak njëriñ yi nga xamante ne làmboo na ko balaa ñoo tàbbi si jotaay bi. bisimilah jërëjëf sëñ Yaxya daanaka mën nañ ne li nga wax ci biir laaj bi buñ ci yemoon sax war naa tax ku ne laaj boppam fu mu toll diggante ma xam-xam ndax mas naa yittewoo lool mm-hmm. te xeeti xam-xam yu bari سنت واغي واخ نهجو خدائر خاجنا فالعلم من خم خم يحيي قلب من تعلم دا فاي دوندال خولو كيغا خامني دا فاي ساكو خم خم كون دا ملني بو خم خم تابول سي خول خول دينا دينا اكو صح تي نيت بو خولام دي من غني ليبام دينا دونت ميغي دوند كون ملني خم خم ماتنا ساكو لول دغلا واخات اي يون نينكو واخي سانك تي شبان ne képp ku dox seen diggante xam-xam nee na kooku mooy xalifab seytaane ci kaw suuf wa man nahaakum ani taallumi fa mm-hmm. huwa xalifatu lainil mujrimi mm-hmm. fi kulli maa yufsiduhu nag mm-hmm. wallaahu jar xasibuhu nee na kooku xisaabam sax dana màgg lool te mooy kii gàllankoor nit ñi ci sàkku ji xam-xam kon mel na ni kon xam-xam mat naa sàkku ndax doomu aadama dafay koo xam ne dafa am lu ko indi ci kaw suuf dëgg la li ko indi ci kaw suuf du ko matal mukk mukk mukk te ne koo xam bu ko xamee it ngir mu matal ko matalin bu dëppoog ni ko boromam bi ko sàkk bëggee mhm. xam-xam day ñëw taxawaat moo tax bokk na ci maanuk suñ borom mhm. doomu aadama bi njëkk wàcc ci kaw suuf mhm. yónent la ko def muy suñ maam aadama duy ko xam-xam duy ko leer yebal ko ci njabootu boppam ngir ñu xam fan la ñu war a teg seen tànk ak fan la ñu war a teggi seen tànk lii nag doomu aadama am faaw dafay am xam-xam koy xamal boromam bi ko mm-hmm. bind mm-hmm. xamal ko lan la ko fi indee mm-hmm. xamal ko loolu mu ko fi indee nu mu koy matalee te loolu seetlu gis ko benn arif bi laa dafa wax ne nit ku ne war naa laaj boppam min ay na jiitu mooy maanaam fan laa bàyyi ko fan laa bàyyi ko bu ca noppee man ne lësi ataa bi xunaa fii ma ñëw kan moo ma fi indi maasa afalu huna fii ma ñëw lan laa fi war a def ilaa ay na azab mooy bu ma fi bàyyi ko fan laa jëm laaj la yoo xam ne yu mat a laaj la fan laa jógee ku ma fa jëlee lan laa war a def fii bu ma fi bàyyi ko fan laa jëm ndax bu la neexee bu la naqaree di nga dem boo demee nag loo fa war a fekk boo demee loo fa war a yóbbaale boo demee loo fa war a jiital fan nga jëmit mat naa bàyyi xel loolu te mel ni nit ñi ñim hmm. ump bari na lool la ko def nag mooy umpale seen bopp ndax xam-xam hmm. moo lay niital yow yaay kan hmm. bu la ko niitalul mën ngaa jaawaleeg loo nuroo lool te du yow da koy faral lu bari nit lu ko jege mu jaawale ko boppam nit léeg-léeg sax nga taqal ay yéreem mooy la sëñ yax yaa taqal nga ma de te moo ne yére yi nga taqal yére yi nga taqal ak sa gis nga la taq ci yére bi ak yére bi mën na koo sumi wékk dëgg la moom jaar ne te moo ne bi mu dalee ci yére bi rek dane da nga maa taqal te moo ne taqu ko taqu ko waaye daa jaawale boppam ak yére bi ndax jege gu ëpp gi mhm. loolu dana ko dal ci téléphone am bii mhm. léeg-léeg batterie téléphone wàcc mu ne mhm. bi alma chargeur sama batterie wàcc li fekk moom yorul batterie waaye téléphone bee ko jege ba mu yaakaar ne batterie téléphone bi wàccee sax daa mel ni moom la batterie am wàcc fekk ne laalewul ak téléphone beeg dara téléphone mën naa jaar ne moom mu jaar ne loolu dana ko dal ci oto léeg-léeg oto diw romb la rek nga ne diw romb na ma fekk ne gisoo ko sax dëgg la waaye oto bi nga gis oto bee ko jege rek mm-hmm. kon xoolal jëmm ji nga xam ne moom lañ yàlla jox mm-hmm. moo ñu gën a jege yére bi mm-hmm. moo ñu gën a jege téléphone bi moo ñu gën a jege oto yi ndax jëmm ji mooy dalal yooyu di kon ñu jaawalee yee ak suñu bopp est-ce que duñ dal ci jëmm ji xam-xam nag moo la koy tàqarlee dëgg la xamal na ne lii jëmm la dafa am mm-hmm. lu war ci moom mm-hmm. waaye yow nag yaay chauffeur bi nga xam ne yaay dawal jëmm ji am mm-hmm. loo xam ne dafa war ci yow boo ko doon misaal dafa mel ni oto ak chauffeur rek dafa am lu aju ci oto bi am lu aju ci chauffeur bi chauffeur bi bu toppee oto bi ci lim bëgg ci lim bañ di ko moytu moom fàtte boppam kooku du nit kooku xel ma mat naa duy xam-xam ba mu xàmmee ne oto bi lii ci war dëgg la ngir lam koy jariñ waaye mm. moom it am na loo xam ne moo ko war te bisa gi ñëw mu génn oto bi dëgg la bu génnee oto bi tàbbi foo xam ne oto bi du ko fa fekk mm-hmm. bu fa jiitalu nag la mu fa war a jiital lu ko fay teral dara xam-xam képp moo ko ciy dimbali dëgg la loolu mooy xàmmee kan mooy nit mm-hmm. ak yaramam bokk dëgg la naa koy misaal ci kii sukuraat day mm-hmm. sukuraat sukuraat sukuraat ba ay waay diw de naxe na ba dem rek diw mi naxe ba dem wax dëgg yàlla bokkul ak lam fa bàyyi dëgg la lan fa bàyyi mooy yaram wi mu nekkoon di ca jëfee di ca waxee di ca doxee di ca doxantoo di ca nangam ak nangam mm, mm. waaye moom mi dem nag fu mu jëm moom mi dem lu muy dundee mm-hmm. moom mi dem lu koy sellal mm-hmm. moom mi dem lu koy baaxal loolu xam-xam moo lu ciy dimbali dëgg la te mat naa bàyyi xel moo tax sëñ bi ne la kon xam-xam mm-hmm. dafay dundal xol dëgg la xam-xam moo lay dimbali ba lépp loo jëfal sa borom sa borom gërëm ko bu xam-xam boobee amul nag ci làmbatu rek dëgg la ak jaawale sa bopp mhm. nga topp di dawal jëmm ji di ko defal boo lekkee ba suur ne suur naa mhm. boo naanee ba man ne màndi naa mhm. te jamono jooju boo fàtte faatu woon la nga suur ak la nga màndi ma nga ca yaram wa day yàqu ànd ak moom waaye yow mi dem nag mhm. ndax regg nga yow mhm. yow mi dem ndax sell nga mhm. yow mi dem ndax baax nga te loolu leer la te ku ne xam ne leer leer lay dundee dëgg la te loolu nit ñi dañ koo umpale lool may faral di wax ne bokk na ci liñ gën a umpale ci réew mi mooy bàmmeel bàmmeel boo nee bàmmeel rek mooy nit bu faatoo fañ ko denc fañ koy denc nit bu faatoo fañ koy denc ak nit bu faatoo fañ denc aw yaramam ndax benn la bokkul mat naa xalaat parce que ki sukuraat ci hôpital li ba naxe ba dem mhm. kooku moom kooku yóbbuwoo ko ci xabru ba de dëgg la waaw kooku mbóotu suñu borom la leeru suñ borom la dëgg la te dana feeñ sax bu jigéen di am doom mhm. jigéen dana am doom mhm. ba doom ji nga gis tànk ak loxo yaak bët yaak yëpp te bu ñu nee ndax am na doom nga ne xale bi day indiwul bakkan indiwul bakkan indiwul <laughs> bakkan su ko defee loolu noo koy def gas ba mu xool suul suul dem denc ndax nit a ñëwul oto baa ngi fi waaye ki war a dawal oto bee ñëwul nekku fi kooku di dawal oto bi nag daa mat xam dëgg la daa mat a xàmmee su ko mm. defee kooku la yàlla may cheikhul murabbi bu mat cheikhul bi mm-hmm. am xam-xam ci moom mm-hmm. mën la koo xamal laabalal la ko ba lépp lu dawalee auto oto bi rek nekk lu baax tey boo ko seetloo misaal la oto bii balaa ngaa xëy dawal ko dañ dëgg la permis dañ lay tàggat mm-hmm. ci théorie tàggat la ci pratique dëgg la théorie mooy moytul lii jaaral fi awal fii tali biit am na ay signalisation yoo xam ne xam ko xàmmee ko dana la dimbali ba nga mucc ci ni ngay dawalee sa oto boobu dem nit tam dafa yittewoo xeeti xam-xam yooyu ci ni war a jëfandikoo jumtukaay yi nga xam ne mi ngi aju ci yaramam loxo beeg tànk beeg mm. bët beeg biir beeg xel meeg xol beeg nu mu ko war a jëfandikoo ba mu méngoo ak boromam bi ko bind na mu ko bëggee loolu bu amul xam-xam du sotti du ko sotti moo tax sëñ bi ne kon daw leen wuti ji ko yaay wa sibiyaanu laa hmm. tastaxilu anil hudaa hmm. wa bil ulumi hmm, staxilu fastaxilu bil xifsi wa tilaawa wajtani boobu ma jaar shaqaawa yéen ndaw ñi na ngeen teet jotaay way texee xam te lu ngeen jàng mokkal leen ngeen ko mokkal taqoo koo xam ne daf leen di delloo ci seen borom subhaanahu wa taala wax ci tasidu subaan yaa maasuru subaan in xiftum xajal fa xaddimoo taalluman ala amal yéen waxambaane bu ngeen ah. ragalee gàcce da hmm. ngeen jiital xam-xam ci jëf dëgg kon xam-xam mat naa yittewoo dëgg la ak sa sëñ ji bi macha allah hmm. waaw bunt boobu am na solo lool hmm. li nga indi ci xam-xam amul lenn luñ ciy dolli xanaa di soññaat mbokk taalibe yépp ci ñu gën a góorgóorlu ci sàkku xam-xam rek ndax nit lépp lu muy jëf te xamu ko du ko jariñoo waaye itam boo jàngoon ba xam lépp wala nga gindi ku xam lépp it te jëfewoo ko daanaka li nga xam du la jariñ kon nag sàkku xam-xam ak jëfee ko mooy gànjar mooy koom koom ñeel jaam bi kon nag bu ko defee dégg ak topp la ñuy ñaan rek saa borom gën ñoo xiirtal ci ñuy sàkku xam-xam bu ko defee sa njibi ñu dugg ci jotaay bi nag buñ nee dugg ci jotaay bi mooy waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall làmp baabul muridina waxtaanee maam Cheikh mooy waxtaanee yoon wi waaye waxtaanee maam Cheikh itam mooy waxtaanee naka la ñuy def ba jëriñu ci Serigne Touba ndax sëñ Fallou daan na wax ne kat nañ santu Cheikh Ibra ndax bu dutoon ak moom naat bi raw te bu nat bi rawoon tey kenn du kon lu ampi am ci Serigne Touba ba mun ko jëriñee rek jëriñoo Cheikh Ibra ñu ubbil buntu boobu kon tey jii ndax dañoo war a di nettali ay mbiram di sarxolle di fettasu di yéemu ci wala dañoo war a gëstu jéem a xam Cheikh Ibra lu mu doon dund ñu jéem cee teg suñu tànk ngir mën a jëriñu loolu nag pour mu mën a am faaw ñu tàqaleel ñu mbir ñi ndax ñiy waxtaan ci Cheikh Ibra bari na waaye waxtaan ci Cheikh Ibrahima Fall teg ko ci xam-xam bu authentique bu leer ba jaam ñi mën a jëriñu dafa néew kon nag bu ko defee Cheikh Ibra bàkkee nañ ko làmp Fall làmp nag fu ngeen ko déggee lumière lay génnee te lumière fenn képp lañ ko soxlaa fu lëndam nekk te olof day faral di léeb ne lëndam amut lu nëbboo am kon nag gannaaw lu nëbbu dafa am te faw am lumière bu ñëw gindi ñu ci loolu ba ñu mën caa jariñu nañ jàpp ne sëriñ Touba mooy lu nëbbu li waaye Cheikh Ibrahima mooy lumière bi ñu war a gindi pour ñu mën a jëriñu ci Sëñ Touba lim nëbbu ci boppam lu mu doon kon nag ñu xam ni dafa am mission bu ko indi woon ci kaw suuf rawatina ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi tey sëñ ji bi suñu bëggoon a xam maam Cheikh Ibrahima Fall mission biir kër Serigne Touba lu mu doonoon. ana loo ñu ciy indil. waaw Yaxya laaj nga laaj bu rëy. Mhm. laaj boo xam ne it képp kuy taalibe. Mhm. war na ko mën a laaj boppam. dëgg la ndax mhm. bu fekkee dañ ne lii mooy sëriñ bi. ci misaal. bunt bi nga xam ne ku ci bëgg a tàbbi ci ngay jaare bunt boobu ku gisul. dëgg la jàppal ne tàbboogu ci mbiram sëriñ bi. déedéet te koo xam ne mbiram sëriñ bi it ñor na la. di nga gëstu bunt bi. xool jaar jaaram. xool doxalinam. xool dundinam xool ay jëfam. rawatina it xool ay kàddu. dëgg la ndax maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. li mu wax ci waxi njariñ mhm. bari na lool. Mhm. te donte néew na nag luñ koy waxtaanee ni ko waxee li ci ëpp. dañuy waxtaan ngir yéem. waaye du ñuy faral di waxtaan ngir ñu jéem. tey te ñaar la yu bokkul. dafa am waxtaan boo xam ne boo ca noppee. da ngay dolli ka la doon déglu ak yéemu. ci maam Cheikh Ibrahima mu dellu la ak yéemu. ci Serigne Touba baax na lool nag. dëgg la waaye nag ñooñu. li leen gën a loon mhm. mooy ñu jéem jéem du wane dañ naan sëñ bee baax rek jeex na mhm. mansuran fa rek a baax jeex na waaye mhm. ñoom nañ baaxee woon tegtal nañ ñu yoon woo xam ne wax dëgg yàlla buñ ci jaaree ñu itam war nañoo mos mos ak mbaax la ba buñ ñu xoolee xam ne kii kat méngoon naag mais taalibe maam Chirañ Fall la kii de taalibe Serigne Touba la ci doxalin ci waxin ci jëfin loolu nag balaa sotti gëstu maam Chirañ Fall du mën a ñàkk daan na wax ne topp naa sëñ Touba na ma ko war a toppee ba dolli ca loo xam ne ku ca dolliwaat dara da nga yàqoo mm-hmm. waaye doo ci jëriñ doo ci jëriñ kenn mënu cee dolli dara ca nam toppee sëñ Tuubaa dëgg la te sëñ Tuubaa ko toppal nooy jëriñoo ci moom mukk du am dégg nga sëñ Moussa Kane mm-hmm. kon mu dem fekk sëriñ bi lem mbiram mm-hmm. ba kenn du mos ci baatinam dul ca bés ba ñuy kon daa mel ni bu yéexoon rek mos ci baatinu sëñ bi gàllankoor dana ca am dëgg la ndax lii tax nga mën a mos ci baatinu sëñ bi mooy ni maam Cheikh Ibra Fall doxee moo tax dégg na bis ñu naan yoonu sëñ baam Bamba wi yoonu sëñ Bamba wi <laughs> mu ne sëñ tubaa bu dee yoon fu mu jëm jëm dëgg la bu dee yoon fu mu jëm mm-hmm. mu ne tubaa dëkk la mm-hmm. sëñ ba dëkk la man mm-hmm. maay yoon wa ca jëm ca jëm tey yoon nag boo ko xamul doo àgg ci dëkk dëgg te ku ne xam ne dëkk ba sëñ tubaa ne ëpp naa ëpp naa wuute dëgg ëpp naa ñàkk a àgg te la la koy may mooy nga xam doxinam roy ko ca dëgg la maam Cheikh Ibrahima Fall ku jàng baax baa xadim sëñ basiru leeral na ne dara génnewu ko woon toppaloo ko sëriñ bi lu dul nam ma àgg ci borom dëgg la nam ma jeex tàkk ci boromam. Mhm. ba mbooleem jaar jaar yim jaar. Mhm. bi mu tàbbee kër sëñ Tuubaa la mu ko wax mooy tànk yàlla toog ba mu sar ci sa kër gi. bi ma fi duggee la ma réer. dëgg la su dee mi ngi fi wax ma su fi nekkul wax ma fu mu jaar ma jàll. ndax ku dul yàlla tax maa jóg. te muy pas-pas boo xam ne képp kuy taalibe. Mhm. moom nga war a doxee. dëgg la taalibe bu ko boromam ñorul ku koy ñor. taalibe bu fekkee àgg ci yàlla du pas-pasam lan mooy pas-pasam bu fekkee ngërëmal yàlla du pas-pasam la ma war a doon pas-pasam te sëñ Tuubaa jàngal ñu ci masaalikul jinaan ne isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmaani xaysu xasada murid mooy ki na ma àgg ci yàlla mhm. sëñ Tuubaa nee na dara dara dara warta nekk nammeelam lu dul ngërëmal boromam gis nga daaj bu ama am solo la mooy murid mhm. pas-pasam mooy ngërëmal yàlla bu dee dëgg ci moom rek mhm. kàddu ya koy mayee lay wax Mhm. jëf ya koy maye lay jëf. Mhm. pas-pas ya koy maye lay fas. dëgg la kon faaw dana wuti xam-xam. ban xam-xam moo may dimbali ba may fas lu may may sama gërëmal borom. ndax mhm. sëñ bi neena na moo war a doon sama jubluwaay. dëgg la nan laay fexe ba samay mbooleem kàddu dëppoog lu sama borom gërëm. nan laay fexe ba sama mbooleem jëf dëppoog lu sama borom gërëm. te loolu ku di taalibe. loolu moo war a doon doxinam. loolu nag balaa sotti faw danañ la yar. tarbiya la tarxiya la tasfiya la. mooy fii sëñ Touba jaar ak maam Cheikh Fall moo tax ba mu ko nattoo rek mhm. ba xam ne ndongo lii pas-pasam bi pas-pas bu wér la ci la mhm. ko yoon waa ngi nii dëgg la maam Cheikh Fall aw ca yoon wa aw ca yoon wa ba ku gëstu dégg nga ba mu ne mhm. sar-sarale sës rëkk a yàlla mbaa jàmm nga am tey ay yàlla mbaa jàmm nga am ko àggul mënoo ko wax déedéet moo tax naar ba gëstu woon mbiram ba dugg xel wa ba mu génnee dégg nga la mu wax xat foxtari jaal قد جست المجال انك الكمال وصلت حقا للجلال وصلت حقا للجلال موي اغ nga deug deug اغ ci am ci wataku serigne touba badil la hmm. te ku gëssu marché bi ko serigne moussa ka defal hmm. di nga xamne ki amna baddi deug la mo sen xibar ak jebalom bay hmm. wax ne yalla mako mom moko ne bamba molo mom rasu ko jox ko say kon da melni yalla suñ borom moko tektal serigne bi te fa mu àggoon mhm. ba yàlla mën a wàqanteeg moom ba tegtal ko sëriñ bi loolu mhm. àgguwaay la dëgg la bëri na ñoo xam ne buñ fa àggoon tey duñ seeti sëriñ Tuubaa ndax mën nañ koo doyloo ah, waaye moom doyloowu ko de dëgg la xam na ne doyut mhm. dégg nga sëñ Tuubaa wax ci mbindam ne dalla alayal ulama wal awliya man laa yazaalu xubati wa xawliya yàlla tegtal na ci man ay woroomi xam-xam ak ci wëlli nit dana dem ba am laay toppi sëñ Tuubaa kon kuy sëñ bi dëgg la waaw sëñ bi daa mel ni fa mu nekk sori na ndax kaw ni li xaarixil baraaya aaya mooy lu wér dëgg suñ borom la kawteefu suñ borom la mhm. bu mu fi wàccee woon nam jaam ñi jariñoo ci moom mhm. xam ne moo ñuy niital sëñ Tuubaa mhm. nan la ñuy jëriñoo ci moom doxin ci waxin ci dundin ci wegeel ak ci tërbiyu ko loolu maam Serigne Fall ni mu ko jàngalee foo ko nattu weesu na ko moo tax daan wax ñu bare bari dee leen koy déglu waaw dee leen koy déglu ndax moo lay xamal ni jariñoo ci sëriñ bi dafa am war ma goo xam ne mooy dox diggante taalibe hmm. ak sëriñ warma jooju boo ko doxalul hmm. mën ngaa sànq sa bopp sax te doo ko yëg te doo ko dañ koy faral di misaal koo xam ne ay sàkku ne daa bëgg ba sëriñ bi te fekk ne sëriñ baa ngi yor taab xam nga loolu mën nga koy bës yaakaar ne lu ko neex nga def fekk ne yaa ngi koy lott yëgoo ko lott yëgoo ko ñàkk xam-xam rek la ko yóbbee cëy moo tax dégg nga sëñ Tuubaa bi muy jàngale sax si faatu saari xil murid hmm. bixti saari arbaatun daf ne nazamtuwaa xaw fi ixtiraar gis nga dama koo noose ngir ragal waru waru waru mooy nga yaakaar ne yaa ngi ci biir fekk yaa ngi ci biir bi dee nga yaakaar ne ni ngay doxee noonu la fekk ne du noonu moom sa dafa daan na ko wax kuy mhm. def yaakaar ne la ngay def noonu la te fekk du noonu nga dem ba àgg fa dëpp wees mhm. mu ne naka pexe ah. te ku sukkuraat nuyu nga doxee murit goo xam ne murit gi wérul hmm. nga doxee Baay Faal goo xam ne Baay Faal gi wérul hmm. sukkuraat nuyu la hmm. mu leer la ne fa nga sampoon sa dund dara baaxu ci dëpp wees na di wees na de kon balaa foofa tey ngaa xool say mbir fi nga koy teg ba xam dëppoo naag ni mu waree am déet bu dëppoowul nag nga bittar ndiku ndax weesagul waaye boo demee ba sukkuraat nuyu la foofu bittar ndiku dana wees waaw dana weesu de moom wax dëgg ëpp naa ëpp naa àgg mhm. kon xam fi ñu war a teg suñu tànk xam mhm. ni ñu war a doxee du sotti mukk te du mhm. wut ne dañoo roy jëmm jooju leen dëgg la ju naqaree xam la nag du naqaree ndax dafa dox ci baatin dafa dox ci baatin te baatin mooy lépp wax naa ko sànq jëmm ji dafa am ci loo xam ne mooy biti bi biti bi nag daa mel ni xott rek waaye biir gi moo ko fi bàyyi dafa mel ni saako ci ceeb rek bu taxawee rek ceeb a nekk ci biir dëgg la waaye boo seppoon caa ba mu jeex ceeb ba mu jeex dootu taxaw saako warul taxaw lay def dëgg la waaw jëmmi doomu aadama noonu la mel ruwa fi nekk rek moo tax jëmm ji taxaw mhm. moo tax ma ne ruuxu moo sagal jëmm dëgg la waaw loo gis ci jëmm ba di ko sant ko gërëm rek xamal ne ruuxa fa ko sagal waaye bu ruuxu ne woon si peet jëmu tëdd jëmu tëdd dootu def dara dootu wax dara dootu yëngal dara dëgg ruu moo ko sagal ruu googu leen nag mhm. dañ koy jébbal ku ko xam cheikhul murabbi yu rabbi ruux mhm. wa yarxa ila la fala budda fil janna suñ tuwaa dana cheikhul murabbi mhm. li ko tax a jóg mooy yar ruux yéege ko nee na kooku fala budda tàbbi àjjana rek waaw maam nag lii moo ko yóbboon kër sëñ Tuubaa da maanaam dex ku dem duy ku soo bën a mes bu génnee xam xam boromam wax ca biir ne ku sàggan sànku faw te lab te doo duy doo set doo setal mhm. doo xam boromam tey su ko defee na xeeti xam-xam bii mhm. ak xeeti yëg-yëg bii ci diggante jaam ak boromam ku mhm. ne xam na ne moo yóbboon maam Serigne Fall ci Sëñ Tuubaa tey moo tax ñu ne Mbàkke Kajoor Sëñ Tuubaa dafa tas daara sampat daara mm-hmm. daaray njàngum kese la tas ci ndigalu Yonent saa salaam samp daara joo xam ne waxul ne daa bàyyi jàngale mm-hmm. waaye nag da cee boole tarbiya daaray tarbiya dégg nga la ko Yonent bi waxoon rabbi mm-hmm. askaabaka bil himmati wala turabbihim bi tarsi faqat dana ko bul yem ak ñoom cim njàng kese kon daa mel ni njàng mi am lu ñu ci war a doole lañ ca wara a nak moy defar pas passu nit ki hmm. baxal ko selal ko ba lim jang ci lu bax mu meun ko jëfee te mu sell ndax nit meun naa jang arafi fess del ci dënnam waaye bu jefe melni ku jangul deug la inna lazi lam rabbal alamin laysa bi alimin wala afnal afnal waa wa neena ki ragalul yalla bu jeexaloon mbooleem fànni xam-xam yi xamul dara xamu dara ndax lim jang jariñu ko jariñu ko señ bi nak seetlu ne gaay dañ daan jang hmm. te am koor ci jëfe lañ jang ndax jàngoroy bakkan hmm. kañaan tiitar mhm. jàngoroy bëgg àddina mhm. gàllankoor la ba li nga jàng ci lu baax ci jëf mu sell mënoo ko dëgg la mu xàll yoon tarbiya nag mhm. maam Serigne Fall ñëw buuf ci moo tax doo ko dégg lu ñaaw mukk ci wax wala ci jëf wala ci jikko dëgg la doo ko dégg ndax buñ defar la mbooleem mag ñi it boo càmbaree seen biir loolu ngay gis ñooñ defar lañ ñooñ baaxal lañ moo tax damay faral wax lu bari ne ñuy weddi tarixa ñun lañ yàpp Mhm. parce que ñun lañ fi fekk <laughs> waaye buñ jotaay woon ak mag nañ defar baaxal leen eh. buñ jotaay woon ak ñoom danañ xam ne tarixa am na solo lool sëriñ bu mat sëriñ am na solo lool parce que mm. dinañ gis ñoom jikko mm-hmm. ak yar ak i teggin yoo xam ne jomb na leen ñoom parce que ku jaarul fi nga jaar nag mm-hmm. wax dëgg yàlla war ngaa laal lum laalu dëgg la war ngaa xam lum xam war ngaa mel lu melul dëgg ku sëñ Tuubaa yar tàggat la jàngal la mm-hmm. boo génnee ku sëñ Tuubaa yarul jàngalu ko war naa mën a jàng ci yow jikko war a jàng ci yow war naa mën a jàng ci yow defar sëñ Tuubaa nag loolu lu ci a la dëgg la te jëmm ju mat jàngat la wax dëgg ndeysaan ndeysaan àgg ci yàllaa ko taxoon a jóg uh-huh. bi mu ñëwee kër defal na ko ci tawféex uh-huh. teg ko ci loxoom mu uh-huh. dund ko rafetal ko jaayanteeg sëriñ bi jaayanteeg gu matale ci biir ak ci biti loolu dëgg la sëñ ji bi macha allah waaye laaj boobu dafa mel ni li nga ci indi doy na sëkk ndax uh, leeral mbiri maam Cheikh Ibrahima Fall dafa jot dañ cee ne te dafa dafa dafay day tolloog fi jamono ne hmm. ndax tey amul kenn ku mën a jëriñu ci sëñ Tuubaa te jéemoo xencu mbooruk maam Cheikh Ibrahima Fall teg ci saw tànk sëñ ji bi li nga indi am na solo waaye tamit faaw ñu taxaw foofu tuuti ndax dañ ne bépp murit ak njébbalam ñu ngi koy natt ci na Cheikh Ibrahima Fall jébbaloo woon ndax Cheikh Ibrahima kat dane woon lu dul yàlla taxu ko woon a jóg muy ñëw di jébbalu ci sëñ Tuubaa ñun ñu nga ko ci say biir i wax da ko ne tànk yàlla laa topp ba message sa jëmm ji te gisuma fenn fu mu jaar so ma fu tank ba jaar ma dem gëstuju juko ndax man yalla kep ma tax a mel ni tank bobu gennul Serigne Touba ndax Serigne Touba agalé nako ko ci boromam rek tey ana mbokk talibé yi nga xamante tay dañuy xéñtu lu bax lolu ban pas-pas lañu wara yéssalat a digënté ak wasila yi nga xamante ñu ngi leen di top ngir mëna dox doxine wu sélu gog nga xamni ne Cheikh la doon dox ci wir yoon ma sha allah yahya ni ma la ko rek laaji mom wax dëgg yalla amna solo dañuy ñaan yalla tonti amin ni solo mhm. ndax talibé mat talibé amna solo lool mhm. waaye nag sëriñ mat sëriñ. Mm. moo ko ëpp solo. dëgg la maam Cheikh Ibra Fall pas-pas bi li muy rëy rëy la ko tax a jariñu. Mm. mooy li muy wut da fekk ci Sëriñ Tuubaa. da ko fekk ci sëriñ bi. waaye bu ko fa fekkutoon. Mm-hmm. lu pas-pas bi rafet rafet rafet rafet. Mm-hmm. daanaka nam def ñeneen ñi rek. lay mm. def day ñëw rek jàll dem. ndax am na ñu mu jot a jaar di. dëgg la doxee fa pas-pasam bii. Mm-hmm. amal leen njariñ lool. waaye nag di nattaale nag. xool ba xam waaja la am déet. ba mu xamee du waaja. que ça mën na ko fàttee. parce que li wër na waxtu biri rijaala xabla suxba mm-hmm. wala tusaaxib xumran awsa raxba mm-hmm. lu am solo la mm-hmm. gis nga du wut ne taalibe sëriñ a koy yeew ci boppam déedéet du sëriñ bi mooy sànni mbaal jàpp ne sama taalibe yaa ngi nii déedéet taalibe mooy ñëw ne ko sëriñ bi maa ngi nii léegi nag ki nga naan maa ngi nii da nga xam fu mu jëm dëgg la benn mag daf maa wax ne wax ju am solo dane xale yi dégmal nañ sëñ tubaa waaye loxo yañ tàbbi ndax lu ci mat a xel ndax loxo ba ngay tàbbi mhm. fa mu jëm ak yow mooy ci sëriñ bi sëñ bi daan na ko wax naan fi ma leen yóbbu na ngeen fexe ba ñi leen topp ngeen yóbbu leen foofa mhm. loolu mooy toppe gi di mhm. góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor jàpp ci yàlla loolu moo war a am gi mooy roy maam Charayan Fall cëriñ gi it roy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul dëgg la sëñ bi damay faral di wax ne waxul ak taalibe yi kese waaye dafa wax ak sëriñ bu baax ci li leen war seen diggante ak ña leen wax ak taalibe yi ne leen toppee leen nii seeni serigne su boobaa njariñ mën bo am ci masaliku jinan wax na ne wa man yurit salaaxal amali fal yarkana lil awliya al kumali suñ tuwaa dane bo bëggé sey jëf sel na nga jéng jëm ci wu yalla bu mat mhm. day mat wëlliwu mhm. daan na wax ci waxi bopam moom sëñ Tuubaa ne leen bu ngeen fi noppé dégg yalla né yontu bi néna na delluwaat leen seen kër yi bàyyi nekk ci la ngeen nekkoon cey kon ab serigne mhm. warta tektalé kudul dul borom moom subhaanahu daan na waxine ne yi buñ xam ci yéen lu ngeen gën a lu luñ leen loo xam ne yéen yéen leen ko gën a bëgg lu hmm. weesu yàlla dëgg la taalibe warta xam ci sëriñam loo xam ne sëriñam gën na koo bëgg lu dul yàlla borom subhaanahu wa taala loolu am na lu muy tegtale dëgg la bañ ko joxee guro moom sëñ tubaa hmm. addiya hmm. dane waa loo ci jublu mu ne ko mbàkkee dégg ne da nga koo bëgg rek mu ne ko sëñ tubaa dane luy guro ci kër gi na génn man kenn du ma askanalee lenn lu du bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon fii la sëñ Tuubaa nekkoon dëgg la sëriñ su matee sëriñ it fii la war a ne mm-hmm. taalibe bi ko wuyu fii la nekkul mm-hmm. fii la nekkul mm-hmm. mu wuyu ko ngir moom mu saañ ko foofu maanaam fi nga nekk ci yàlla suñ borom ak yonent ak lim gërëm ki nga xam ne ay bakkanam dañ koo gaar xol bu tilim gaar ko mu wuyu si la fii nga koy teg dëgg la moo tax boo seetloo yoonu ibaadaatu sharia ak ibaadaatul niñ koy defee ci tasawuf niñ la koy jàngalee bokkuñu dëgg la ta loolu dinañu dimbali ñu leeral tuuti ci mam Cheikh Ibrahima ndax ñu mm-hmm. bari mën nañ ko jam ci ne woru asaka asakawul ajul ma te temu teg ko fu leer nak <laughs> ndax yalla ma ne nangam rek doyna sa ko deug la yalla mi santane yoy mo ko ne yow jaaral fi deug la lolou lu ci yoon ni deug la yoon kenn nekku ci yoon kenn nekku ci okay manul rek deug la <laughs> bo amé nak sak ñak dégg-dégg wala sak ñàkk manu ba songu ko mm-hmm. mënu ci mom dara deug la ba ngay dé di nga dégg turam ba ngay dé di nga dégg yu bax yow nga xamné ne ñu ko koy waxal te mm-hmm. mënoo ci dara kon yàlla suñu borom bàddil na ko mhm. su ko defee nag yow lijjanti sag jaamu dëgg la julli daa am lu koy baaxal mhm. koor am lu koy baaxal asaka am lu koy baax ajmaaka am lu koy baaxal parce que mhm. fondement yooyu yëpp mooy xolu doomu aadama xol bi bu laabee loo def baax na xol bi bu laabul loo def baaxul moo tax mas nay wax ma maam Chara Fall ñuy waxtaan ci njàpp mu ne anoon nañ koy defee ñu leeral ko dangay raxas loxo yi raxas raxas raxas raxas <laughs> ba indi tànk yi ne nii la mu ne waa cër wi nga xam ne ci la bokk te ndox du ko laal moom nu ngeen di def ak moom ñu ne ko ban cër la mu ne war nax nu aqar bi léegi min xam lil warit ñun yàlla ñoo leen gën a jege seen buumu xol yi mooy xol bi di daan na wax ne fi mot ragg ci nit doom ndox àggu fa àggu benn tubaab mos naa laaj bi ne ko déedéet mhm. <laughs> bëgg laa mu ne ko déedéet inama musiko najasun najasun mhm. que lu tax mhm. bokkaalekat yi yàlla yi yi sobele que ça mu ne ko midee jot te ci subaak léegi sangu naa fi ñetti yoon suñ tubaab ne ko fa tilimam àgg loxoom yàggu fa maanaam fa nga tilimee sa loxo àggu fa <laughs> loolu tilimu xol la dëgg la maanaam Maam Faal nee na am na cër woo xam ne ci njàpp yu la bokk te ndox du ko laal dëgg la loolu mooy xoolu doomu aadama xool boobu leen bu laabee lépp laab xool boobu bu yàqu lépp yàqu te xam ne saa salam la dëgg la inna fil jasad mudaxatun isa saluxat salaxal jasadu kulluhu isa fasada fasada jasadu kulluhu alaa wiyal xalbu bu tilimee lépp tilim waaye bu baax yi lépp baax lépp baax ku léppam tilim lu mu mën a def ci lu baax dara du baax dara du baax di ki léppam seet kooku bu ne lewee sax baax na lu mu def baax na te moom loolu la ko yàlla defal ci dara jësiñ ndeysaan laabal xolam baaxal xolam ni ko sëriñ bu mat sëriñ baaxoo yam xoo añan xal bi rey nan xat yu dani suu maxawal ma xas sali an sabi najasan ulaykal xawmu la yasqa jëli suuhumo is yag si buuna muridina saadaati sëriñ su matee sëriñ mhm. dafay fóot xolu taalibeem mhm. ba mu set wecc wecc wecc ni ngay jëlee yére bu tilim fóot mhm. tilim bi jaar nee yére bi nga génnee ko mu set wecc nee na sëriñ su matee sëriñ li def ci taalibeem xam ne lii sëñ Tuubaa ko maam Cheikh la su ko defee nag li mat a jàngat ci yoon woowu leen mooy xam ne ñun taalibee ñooy maam Cheikh Fall sëriñ si it ñooy sëriñ Tuubaa dëgg la ñun nag ndax mat nañ maam Cheikh Fall sëriñ si ndax mat nañ sëñ Tuubaa du mat ci matu la sañ Tuubaa beru ndax ku yàlla ber la. dëgg la am na loo xam ne moom. Mhm. mënees nañ ko ci roy mhm. waaye am na loo xam ne lu jagoo la. dëgg la digganteem ak borom. dëgg la maa ngi sëñ te mu mat sëkk sëkk mhm. sëkk xel nangu ko. déedéet ndax yàlla da koo defal li jagle. dëgg la waaye nag mën naa wuutu sëriñ bi ci taalibe yi. loolu mën naa nekk. dëgg la nan ngay wutoo sëriñ bi ci taalibe yi mooy lam doon def. ci taalibe yi nga koy def. boo bëggee jëf ju sell sëñ Tuubaa nee na wutul sëriñ bu mat sëriñ mhm. te jëfe na jëfe na loolu moom sëñ Tuubaa mhm. boo bëggee àgg ci yàlla toppal koo xam ne du jeng ci saayar du jeng ci baatin mhm. kooku mooy wutaatu sëñ Tuubaa ci yow dëgg la wax na ko ci magaaliku niiraan ومن أراد الوصول للجليل فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم متي أن لا يميل في ظاهر وباطن عن السبيل يقوده بالعلم والإبادة كما يربيه بترك الآلة آه. كنا فمن نسان يعمل لك ورد يباري يباري يباري آه، تلور تلور <laughs> سرين دون نكايرك إن <laughs> دلنا آه. <laughs> دي ناقم لم نجتوع لنا جيخ لديد تاني دفك يتاق ديكو ييك ديكو يار تقم قم أجام يال بيبو لوم آدو ووان ديكو دف ديكو وقت دبو لغليا لغرم سرين بدوخ سدقان تقلوال ne la bàyyi lii jaaral fii bu la sëriñ deful lii nag war ngaa xam ne yow ndax yaa ngi ci yoon dem ci hôpital kenn joxu la médicament waaw kenn saytuwul sa analyse kenn hmm. xoolul dara dara dara dara war ngaa hmm. xam ne yow génnul hôpital boobu waaw wax dëgg yow ci kër nga ne waaw ci loolu ah, <laughs> hôpital moom da nga joti analyse <laughs> eh. da nga joti garab da nga eh. joti perfusion da nga joti nangam ak nangam lii mooy tax nga xam ne man ñi may faj dëgg la nga yëgoon métit dëgg la yëgoon na kat mi ngi wàññeeku hmm. waaye bu dee da ngaa dugg ci Mhm. amul benn médicament bu ñu la prescrire jëlu jëloo wird jëloo mhm. askar jëloo sikar nekkoo ci tool yi mhm. majjaali woo xamoo ne yow mi ñu ngi lay teg ci yoon wu lay defar war ngaa xoolaat sa bopp ne kat sëriñ bi daa mel ni fi mu war a jaar ak man jaaru fa jaaru fa man ci lu nga seeti koo xam ne nag na ko maam Sëriñ Fall defee woon ci fulla koo faa jaar ak yow te looloo jaadu parce que yi dafa am lu ñu leen di xàmmee mooy seen i yëre dëgg la kese boo ñëwee fekk ko fi rek rafet njort waaye du wut ne yére yi nag mooy faj de déedéet xam-xam xam-xamay faj dëgg la waaw bëri na koo fekkee yére ba bëri na koo fekkee melowa te boo làmboon ci biir leneen dafa ne ci pexe la dafa nekk cey moo tax sëñ bi ne woon kon làmbal gaa yi bul jébbalu ci dof bul jébbalu ci borom xemmem téef xoolal koo xam ne moo la gën fuuf gën laa jege suñ borom lim la ëppale lépp warta yem ci moom nag nga dékk sa ndab mu def ko ci yow te loolu mat naa jàngatee diggante maam Chérif Fall ak sëñ Cheikhouna Cheikh Amadou Bamba Khadimou ak sëriñ yi ko jiitu woon sax mhm. ndax xëyul xëy dal ci sëñ Touba waaye ñam njëkk a jàpp xam ne ñii fañ jëm ak ñoom du foofa am na fulla ju doy ne leen fa ñukk dëgg la balaa dëpp di wees dëgg la ndax am na foo xam ne boo fa soree rek mhm. kóllëre mën na la faa takk dëgg la miin mën na la faa takk mhm. fii laa xam ak fii la sama waajur nekkoon naa lu ne mën na la faa takk waaye wérut de dëgg la waaw bu dee waajur fa la nekkoon te du foofa mhm. maam fa la nekkoon te du foofa loolu moo daloon yonent yi ci ñeneen toppoon yéeni seen i bàyyi ci xërëm yi lañ doon jaam tey ngeen topp waa ji ndey nangam bu dee fañ ne baaxul kay yow demal nekk fu baax fexe leen faa xëcc bu ci seen wërsëg nekk ñu fekk sa bu la ci fekk si wala yow lii sa farata yow mooy topp lu baax dëgg la topp lu dëpp mbir mi ci lu wër te maam Serigne Fall wax dëgg yàlla jàngale na yu rëy a rëy ca loola mhm. moo tax ku mat a ñaanal la yàlla fayal ñu ko dëgg la ndax ku laa biram mbokk taalib bi la macha allah ci jëfinam ci dundinam ci waxinam dëgg la ci lépp loo xam ne luñ mën a askanale ci moom la dëgg la sëñ ji bi est-ce que macha allah waaye leeral googu itam am na solo mhm. mu mel ni sëñ ji bi Euh, leeral nañu Cheikh Ibra maanaam lu mu doon nit biir kër sëriñ Touba mooy nan lañuy def rek ba jëriñu ci baatinu sëriñ bi waaye tamit leeral nañu tamit sëriñ bu matee Serigne ban toogaay lay toog ndax sëñ Touba wax na ko wa man ilaa xayril illaahi dallaka faxfira minhu innahu adallaka képp koo aju ci moom bu la mënta yóbbu ci yàlla na ko daw ndax ku lay réeral la mu ne nag ki nga aju ci moom te mu lay wommat di la yóbbu ci yàlla فإن خلفت فللمريض تطمئن نانا بو ووتيك موم رك دالي جي سيطان رك كون نك سيرن امنا توغاي بو كو وار واي طالب ايتام امنا ملوكان بو مورا دوخي تاي جي سيرن جيبي بو ني بوغونا خام تاي اب باي فال لان مو ورا نيك او دوخالينام اك ملوم غناو لي غا ني انديل تي مام شيخ ابراهيم فال اك دوخي ني جامونو تاي لان غا ني تي انديل تي اب باي فال نكا لا ورا دوخي موم تي بوبو فكسا وا لولو موم مام شيخ ابراهيم فال مو ني تي ديمبالي ndax li may faral di wax mooy mag ñi mhm. neewuñ mbooloo mi kaay leen wuyu suñu daal di maanu ci ñoom mhm. loolu de ku ko gis xëy na tey la am moom mhm. maanu ci sa taalibe ba nekk ci loo xam ne lu juunu la sa ñoo wax sañoo jubbanti déedéet dëgg la loolu de mag ñi ñu ko du sëñ Tuubaa du maam Sëriñ Faal sëñ Tuubaa daan na jubbantee sëñ Tuubaa lim wax lim bind gis nga ni mu toll te lépp tege ci yoon rek dëgg la la ca desaat yi mooy maam Sëriñ Faal dafa wax ne Baay Faal ñett la dëgg la si karturu yàlla mhm. sàmm say cër mhm. liggéey joxe liggéey joxe lii nag nuru na lu woyof lool mhm. waaye diis na gan dëgg la si karturu yàlla boo demee ci masaal ci buur janaan dégg sëñ Tuubaa amaa dawaa mu zikr foofu akbar min kulli maa kaana moom xat xultu zaalika bilaa israari wala ubaali bi zawlika nee na ki jëm ci yàlla lépp lu muy bëril la ca gën mooy taqoo tudd yàlla suñu borom subhaanahu wa taala tudd yàllaa gën a màgg julli tudd yàlla moo gën a màgg koor tudd yàlla moo gën a màgg asaka moo gën a màgg ak màgg mhm. te yii boo ci génne woon tudd suñu borom daanaka daanaka fa des dëgg la ak misaal di zikir ya nee na sax taxawal julli ngir nga tudd ma mhm. Baay Faal nag mooy koo xam ne ma nga sax dàkk dàkk ci tudd boromam te mhm. tudd borom bi lu rëy la lu màgg la dëgg la jàng nañ ci alxuraan suñ borom wax ne inna salata tanha ani fahsha wal munkar waaye nag wala zikrullahi akbar muy sas wu rëy nag ndax yàlla dafa wax ne julli day fekk lu ñaaw lu ñu sib ak lu ñu sib mhm. mu mel ni ku bàyyiwul lu ñaaw bàyyiwoo luñ sib moo xam say rakkaa nu mu toll mhm. boo ko bàyyiwul julleegoo yow julleegoo ndax julli boo ko doon misaal dafa mel ni eh, saafara la soo xam ne boo ko diwoo rek mhm. day faj lu ñaaw faj lu ñu sib kon boo ko diwoo fajuwul li yàlla wax a wér dëgg la waaye yow yaa julleegul dëgg la boo jullee rek war a set wecc ci dëgg la ndax yàllaa ko wax te waxam du tuxu du tuxu inna allaha laa yuxliful lu mu la dig du wuute lool dëgg la kon bu nee julli day fekk lu ñaaw di fekk lu ñu sib kon boo jullee bàyyi. Mhm. waaye léeg-léeg nga dégg ku la ne mën naa def lu ne. Mhm. waaye damay julli. <laughs> loolu xel nangu na ko. nangu ko moos ana njëriñu julli <laughs> déedéet lu ne mën koy def dugg ci dëkk bi toj kaas naan da nga waaye nag waxtu julli jotee ma joxe ko te yëgoon ne julli boo ko joxe woon dëgg. Eh. loolu nga ne lu ne da koy def da nga ko ba. Mm, da ko ba ndax julli gi. jullee la koy bàyyi dëgg la. te nag yàlla màgg na màgg goo xam ne. bu mm-hmm. doon waxtu wu ne nga jàkkaarloog moom. Mm. war ngaa rus diggante waxtu yi di ci mm. jëf wala di ci wax. luy tax nga am kersa boo jàkkaarloog iyaaka na abudu wa iyaaka na sayin foo jullee wax ko mhm. yaw mii yow mii jàkkaarloo la mhm. damirul mu xaatab la ki ngay wax da ngaa jàkkaarloo moom mhm. yow laay jaamu yow laay dimbalikoo ko balaa ngaa ñëw ne koy yow laay jaamu yow laay dimbalikoo war nga ne keneen ngay dimbalikoo keneen ngay jaamu te sëñ Tuubaa sax nee na ci iyaaka nax bu doo wa iyaaka nastayin nee na fa la julli di baaxoo fa lay yàqoo que boobu dañuy werante ci ubbi ko bisimilahi rahmaani ak ñàkk ko ubbi ko rek ndeysaan bi ne leen bisimilahi rahmaani rahim kan ne ko yàlla alhamdulilahi rabbi alamin kan la yàlla mhm. rahmaani rahim kan yàlla mhm. maaliki yow mi kan la ne yàlla mhm. mu ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastain mu ne boo ko xasee ba wax ba wax nee na malaaka yi jël si julli rot nañ bu dee dëgg ci xol bi ñu jël yóbbu bu dul dëgg ci xol bi ñu bàyyi la ak sam julli amul ma dem te ñëw yow a jóg a jóg julli naam fekk ne julleem la waroon a dëgg la ayibu jàmbur. Mhm. kenn du la ci àtteew. Mhm. bu fekkee ayib la. dëgg la bu fekkee ayib la laa wax. Mhm. kenn du la ci àtteew. dëgg la yow say ayib bopp lañ lay àtte. lañ lay àtte. jullik jàmbur kenn du la ko laaj. moom lañ koy laaj. kon tey ngaa lijjanti sa julli. lu ko baaxal lu tax mu mel ni borom bi la ko sant bëggee. lijjanti ko moo ëpp solo. la ca desaat it mooy moom maam Serigne Fall moo wax ne. yàllaa ko ba mu ñëw. mu ne ko banqal sa baaraamu bant mhm. mu ne ko joxe gën julli mhm. cey liggéey gën jàng maanoo gën koor gën koor cey daa mel ne tool yooyu la ko yàlla xàllal dëgg la ne ko boo ko defee it du la mhm. ko fay moom it wax na ne bu ma kenn fenal waxuma kenn bu mu julli waaw <laughs> bu ma kenn fenal yàllaa ma woo ba mu ñëw mu ne eh. ko boo jullee du la ko fay yaa ak sa waa kër ak sa waa kër waaye xamal ne joxe gën julli maanoo gën koor liggéeyee gën jàng Mm-hmm. kon moom ca yee la xëy gis nga mm-hmm. joxe mm-hmm. kéemaan la ci dëgg la maam Cheikh Fall joxe moom mm. kéemaan la ci dëgg la te ku gëstu di nga xam ne ku tabe woon la dëgg la tabe ci darajaam tabe ci alalam tabe ci xam-xamam tabe ci léppam ba taalif sax téere far gis bu murid kon kooku tabe mm. gi foo ko natt weesu na ko te yéeféer bu tabe sax du tàbbi sawara du tàbbi sawara waxuma jullit de yéeféer bu tabe du tàbbi sawara ndax tab gi ndax tab gi du la laaraaf la jëm wax déedéet wax ko ci jullit bu nay mhm. wax nañu tax bi àjjana du tax bi àjjana ak lu jëf ci lu baax gis nga ko mhm. kon yor na yu bëree baree bëri yoo xam ne mat naa mat naa jàngat mat naa roy kon suñ Baay Faal mhm. loolu la ubbee mooy sikkar tur yàlla fa doon jëm sax ndax bu nee julli day fekk lu ñaaw ak lu ñu sib teg ci ne wala ak akbar tudd yàllaa gën a màgg kon tudd yàlla lu mu fa war a ba tudd yàlla moo gën a màgg julli te julli dafa bàyyi lu ñaaw julli waru faa bàyyi lu ñu sib mhm. kon ku tudd yàlla dëggi dëggi tudd mhm. kenn du gis lu ñaaw kenn du gis lu sib kenn du gis sax loo xam ne lu woyof la lu xeebu la dëgg la parce que li nga mhm. moo gën a màgg lee nga xam ne war naa fegal waa ji lu ñaaw ak lu ñu sib muy baatub laa ilaha illallah bi nga xam ne moom la ba ba Baye Fall dëkkee. dëgg maam Cheikh Fall daraan wax ne bu yàlla xëree gémmiñ si baatub laa ilaha illallah tax ci lu wër wa yaqusu kullu min al xawaasi xistan lahu min zikri rabbina loolu mi ngi ci masaalikul jinaan mm. sëñ Tuubaa dane saa boo tuddee yàlla rek mm-hmm. cër yi bu mu doon ci ñoom am na lu mu ciy jël dëgg la bu ñu demee ba loxo màndi ci laa ilaha illallah mm. loxo lu mu jàpp yàlla gërëm dëgg la bu demee ba bët màndi ci laa ilaha illallah bët lu te lu bees tàq lay doon. Mhm. waaye méngoog alxuraan. Mhm. méngoog wax yun saa salaam méngoog waxi Sëñ Tuubaa. tey la koy def mooy ikma. kama mhm. arsalna fiikum rasulan minkum yatlu aleykum ayatina wa zakkikum wa yuallikumul kitaaba wal hikma gis nga. dëgg la loolu ci yun saa salaam daan baaxee ñam defar. la bokk te loolu buntu. def lu baax ak wax lu baax ak si kartur yàlla da koy maye. dëgg la moo tax Baye Fall lim jàpp nekk lu wóor loo xam ne ku ko téye te muy dëgg ci waxuñ téye wantu mm-hmm. mais da ngay téye tur yàlla mm-hmm. di ko tudd bu wér nga xool mm-hmm. la julli di maye tur yàlla maye la ko na kuy def lee taxee na laalu ko mancherain fa doy na ci tegtal dëgg la loolu ci sikar tur yàlla sàmm say cër mooy cër yi la yàlla jox dañoo am buur mooy xol bi dëgg la xol bi nag boo ko defaree ba mu baax loolu mooy sàmm gu mag gi de waaye boo yaakaar na ngay sàmm loxo ba du sàcc hmm. sàmm lu tànk ba du dox lu war a dox hmm. sàmm bët ba du xool lu mu war a nopp de loolu day bari day bari am na benn boo xam ne boo ko defaree lépp yëpp ci lañ aju tey mooy xol bi xol la sëñ Tuubaa wax na ko ci téere yu bëree bëri te subaa nag yu bëree bëri hmm. mu ne xol dafa mel ni buur ci cëri alxal bu kal malaka fi daa daa max maa yemi tamit ci daa da nekk xol mooy buuru cëri fu mu jéngi jëm cëri yëpp dëgg la moo tax mu ne saa musee cër nag mooy xol bi na laab rek bu xol bi xasee ba laab ba mel ni mu war a mel su boobaa cër yi daal di sàmm ndax xol dellu na ci yàlla mm-hmm. xol bëggul lu dul yàlla xol mm-hmm. jeexul tàkk ci ku dul yàlla mm-hmm. kon su boobaa cër yi dañuy sawar lool ci jeex tàkk ci fi xol jeex dëgg la moo tax mu nekkoon sàmm say cër ci ak moo di ak Baye Fall dëgg la doo dégg tànk ya dox lu araam mm. loxo yi duñ jàpp lu araam bët ya du xool du déglu lu araam kon lu mm. diis la woyoful waaye la ko koy woyofal nag mooy téye gim baatu baatub laa ilaha illallah mm. te muy dëgg ca moom la ca des nag mooy liggéey joxe mm-hmm. moom liggéeyul ngir tiitaru mm-hmm. liggéeyul ngir jaay ne nii laa toll mm-hmm. waaye dafay liggéey ngir teral jaam yàlla yi dafay liggéey ngir baaxi jaam yàlla yi te lu am solo la jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla bokkuñ dëgg la jaamu yàlla ay cër a koy def. la waaye liggéeyal yàlla ci jaamu yàlla yi lañ koy def lañ koy defee ci. mooy <laughs> liggéey lu la leew doom. Mm-hmm. doomu aadama dikk ak soxlaam. wala bu dikkagul ak soxlaam sax nga fekk ko fa. Mm-hmm. waaw fajal ko ko. loolu li ci nekk ci yiw kenn kenn kenn xamu nu mu toll. ci waaw moo tax Baye Fall dañ koo xàllal yoon woo xam ne. bu mm-hmm. ca jaaree jàll ca ngërëmal yàlla la jëm. dëgg la waaw kooku du ko ñuy xisaab. di xool ay mbiram fii la jaar nangam. déedéet. bëri na kuy lijjanti seen mbir nag fekk yow yaa muccagul ci xisaab. dëgg la waaye ki nga xam turu yàlla la téye mhm. ci bu wetee bu wéttalikoo mhm. ci suba yeeg ci ngoon yi wëlbatiku di sàmm ay cëram ba lépp lu yàlla gërëmul ci wax ci jëf moom fexe na ba fegu ci mhm. wëlbatiku di dundee ñaqam wii di teral doomu aadama yi te yàlla rek tax. Hmm. di jaayante kilifaam te yàlla suñu borom képp tax. tey moo tax dégg nga maam daan na wax ñoom jàpp jullee koor ak. mu ne hmm. lépp yàlla la. dëgg la <laughs> te war na bépp bopp. bépp bopp noonu la ko waxee moo tax waru julli mosu koo wetti. mosu koo wetti war na de waaye moom moo am nag ak jagle. dëgg la waaw war na dana lempo la. moo hmm. xam ne war na bépp bopp. waaye nag ajuma ci sama dara. ajuma ci sama dara ajuma ci sama dara gi ndigalu boromam la. ci moom la moo ko wax. na benn nga gëm na fa man saa fal yumin fa man saa fal yakfur dëgg leer waaye moom nee yàllaa ko ne bu ci aj sa dara moo tax mu ne ajuma ci sama dara mu ne sama lépp ci liggéeyal sëñ Bàmba laa ko aj li ngay wax noonu li koy dëggal mooy boo demee ci li ko Cheikh man ay niin wax mm-hmm. danaan ko man raama mislu ko ajas fala yura u fil majas zalika wax dun xad najas charwaaka laysa fil bachar mu teg ca nag ne xadamta ahmad al xadim bi isni rabbikal xadim bi isni rabbikal <laughs> xadim mu ko liggéeyal nga sa sëriñ ba sëriñ tuubaa ci ndigalal sa borom mu ne ko cheyxaka sa ceex nuurun min xadim leer la gu tukkeekoo ci yàlla suñ borom ndax mel nañ koo jaarale ci sëriñ tuubaa waaye yàlla suñ borom mi ko joxoon ndigal moo mu jébbalu fañ diggalee sëñ Tuubaa mu woote fa lañ diggalee maam Cheikh Rafal ne ko demal nga woon jaam ñi nu ñuy jëriñoo ci moom macha allah sëñ gis nga diggante bi ku ko nand maanaam mm-hmm. comprendre ko ci maam Cheikh Rafal mm-hmm. dina la yombal lool nga maanu ci mm-hmm. diggante ma borom ndax ñoom julli ñoom woor ñoom azaka aj màkk yàlla ko digle ñan la ko digal ay jaamam moom nag sañ na ci nettalik maam Cheikh Rafal teggil ko ko moom ne ko nag sama jaam bee di Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mm-hmm. jàppale ko ci liggéeyam jàppale ko ci woo wootam fexe ba nit ñi jariñ ci moom dëgg la te benn mag dina koy misaal ne buñ ne rang na jub mm-hmm. ki war a saytu bi war a jubee kooku mënta nekk ci biir rang yi déedéet kooku faaw mu <laughs> du nekk ci rang yi kooku da koy génn bu nag di saytu mm-hmm. ni rang bi mel ka xamut dugg ci rang bi fekk kooku loolu du liggéeyam dëgg la moom bokkul ci ñi war a rang. dëgg la kooku ci ñi war a saytu rang bi la bokk. exception la bokk dëgg la exception règle boo gis day am exception kon Cheikh Ibrahima exception la. Ah, bi ngoog loolu koy waral ndeysaan dañ naan mooy l'incompris. Mm-hmm. daan wax naan damaa naqaree gëm te neex a weddi doom. Mm-hmm, dëgg la te daan na wax ne mbir yi ñett la rek. Mm-hmm. nee na jébbalu doy na alxuraan. jëfee ndigal doy na xam-xam waaye joxe sa alal doy na diine. tey jii ci buntug joxe sa alal doy na diine. Euh, dinañu permettre ale ñu dugg ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak koor ndax. sëñ Tuubaa daa toog bés ne Cheikh Ibra damay am gan bëgg nga gàttandul ma ko te bendeelal ma ko mm-hmm. Cheikh Ibra déggee ci ne gan googu kat koor la mm-hmm. daal ne euh, mag mam nekkaloon ne ko bindal ma ndogu mu mm-hmm. bind ndogu muy deel ak waaw ak keef bi mu ko adadee mu jàpp fanweer mu ne ko kon ndogu yi ma sëñ Bàmba di joxe loo benn ndogu bu ma ci joxe bu ne am naa ci weerug lumb ne nag képp ku ma ci jox lu tollook tànk danaa dox sa digganteeg sa wara kon nak mu melni ndogu yi nga xamantene tay njabotam ñu taxaw taxaw bu di ci siaré khalif bi seigne mustapha Fall mom seigne Modou Mbenda ak jëwriñam seigne Cheikh Ndiaye Mbengue Fall di ci ay jambar di ci jëf lo xamantene bu bëtang koy gis tay yi seigne ji ana lan nga ñu mëna indil ci digënté mam Cheikh Ibrahima Fall ak koor ndax dañu nekk ci wéram it té wér wi it ci la won mhm. wéru koor wax liñ ci war indil indi ko mhm. ndax boo seetloo taxawaay bi mu ci am ci wàllu joxe ndogu tënk na lu bare bare bare bare mhm. te nag tey la mel nii ndogu yomb na mhm. parce que lu ci bare bari contexte bi dañ koy faral di fàtte mhm. waaye ba Maam Sëriñ Faal di toggi ndogu di yët Sëñ Tuubaa di tasaare ci njaareem booba du wut ne njaareem bii la de dëgg la du wut ne ndakaaru gii la de booba ñàkk mën naa ne bari woon na lool dëgg la ku jàng tuuti di nga jàng crise économique des années trente dëgg la waaw togg lu mel ni dama am Serigne Fall daan togg di ko mm. léeg ay mbokku jullit xam nga ne yaa ngi ci liggéey bu rëy rëy boo xam ne sa borom gërëm na ko te la ko ko may mooy dégg sëñ Tuubaa tey moo tax na ko sëñ Moussa ko bàkkee mm. na ko waane yaa xarañ waaw xarañ googu mm. moo ko may déggin woowu ndax maam Serigne da ko woon ko damay am gan mm-hmm. kese ci la yem ak moom mm-hmm. gasandul ma ko teralal ma ko di mm-hmm. rek la ko sëñ bi wax di kese waaye ci biir dégg-déggam ak xam sëñ Bàmb bu wér moo ko xamal ne ko kat gan googu du kenn ku dul weeru koor ci ramadan la rek mm-hmm. yaa xëy na day fit dégg ko di loolu day na wane ne kon sëñ foofu lu mu mm-hmm. gan gi mooy weeru koor yaa xëy na day fit xat mm-hmm. gis nga ko gën ci gan la sëñ Tuubaa tuddee weeru koor foofu kon ba mu ko gan rek macha allah faal la xelam daj ah loolu moom ndimbalu suñu borom la dëgg la kon ndigal lay jëfee ba bis yàlla tey bii njabootuk boppam géeg taalibe yi wéyal loolu ba bis yàlla tey bii muy jariñ nag jëm fan mhm. muy jariñ jëm fan ca kam bàyyi ko te dégg nga yun saa salaam wax na ci xaddis ne képp ku sos dara sunna joo xam ne sunna ju baax la mhm. ña ko jëfee mhm. danañ ca am lu baax lu baax lañ cay am danañ la ci fàggul loo xam ne lu ni toll la jox la ko te du wàññi ñoom ci seeni yoon dara léegi xalaatal na maam Serigne Fall ba mu sosee ndog ya ba bis yàlla tey bii loolu ay ay ay weeri koor weeri moo tax ndeysaan bu mu saan toog ne yoon waa ngi yokk buñ ko nee nangam sangam diw jébbalu si naag ñii ñëw nañ jokk si danaan déedéet man ni ma déggee yoon waa ngi yokk mooy lu waaye jëf ci lu baax man dama ci am ndax maa wane naka la <laughs> ak sa xam ne du ma yem ak a ah, mi ngi noonu kon loolu it day yokk dara jaam mhm. a mën a jàngee diggante ma koor ni nga ko mhm. waxee ci ndogu boo jëloon baati mhm. la lay jox fanweer mu yi la ñuy woor kon wax dëgg lislaam la jàmbaar ju digg boromam la Mhm. jàmbaar ju dégg sëriñ Tuubaa la mhm. ndax sëñ bi it wax dëgg yàlla bëgg ko baax na lool waaye mhm. dégg ko dafa ëpp solo dafa ëpp solo boo seetloo maam Cheikh Fall li ko beral lii mu am ci koor gi dégg sëñ Tuubaa képp ko dégg sëñ bi cay waaye bu amutoon dégg-dégg mën naa déggee neneen gan gi te su boobaa lii di jariñ ba bis yàlla tey mën naa bañ am cay moo tax ñu ne dégg sëñ Tuubaa moo gën bëgg sëñ bi neexut a dégg nag dëgg la dégg sëñ Tuubaa moo gën bëgg sëñ bi ndax boo bëggee sëñ bi ci bëgg sëñ bi nga yem te mën nga koo bëggee bëggin woo xam ne mën na laa bañ a tax a jariñ dëgg la ndax bëgg kese doyul. Mhm. bëgg xam-xam moo koy wommat. Mhm. su ko defee bëgg gi jariñ. dëgg la fi ne ak lu mën a nag bëgg mhm. téléphone ak bëgg oto. lu mën a mën nga waaye boo ko mënta dawal. Ah, yàgg naa bëgg dara di jóg dem dugg ca marché ñàkk koo xam tax ñu nax ko. mi ngi ko ah, jaawale <laughs> xam-xam. maanaam boo def ne roy du ma ne ko ah kay. mën naa nuru pire. dëgg la waaw ba nga topp roy ah, bëgg xam moo koy wommat. dëgg la moo tax nag dégg Sëñ Tuubaa li mu gënee bëgg Sëñ Tuubaa mooy ku dégg Sëñ Tuubaa bëgg sëñ mm-hmm. Tuubaa ku ko dégg da nga ko bëgg mm-hmm. maanaam boo déggee njàngaleem mm-hmm. dégg xam-xamam dégg fam jëm dégg lim li ko boromam jaral li ko saa sam jaral li ko alxuraan jaral di nga xam ne kii ko mat a bëgg la te it dégg gi nga ko dégg dégg njàngaleem dana la dimbali wommat la ba nga jëriñu sëñ bi dëgg la kon jaar foo xam ne dana la déggloo sëñ bi lu am solo te maam Serigne Fall loolu ko yàlla defal mhm. moo tax cër yi mu am ci koor it gis nga ko bisu yàlla tey bi mhm. njabootuk boppam gi wéy ca loola am na mhm. ñoo xam ne sax mën nga leen a fekk ci mbedd la loo la waaw mën a def mbokki laayeen a dégg sëñ Tuubaa te mooy maam Cheikh Rahma maanaam jëf ji mu doon jëf barke gi da saa ba ña ko doon weddee ka dii sax far nañ tàbbi ci ndogal yi di ko joxe te yëguñu ko fi ne foo wër ci bitim réew ak fépp ñu ngi joxe ndog kii ko njëkk a def ci lislaam ñu xam ko mooy maam Cheikh kon ku yàlla suñ borom bàddil la ku mhm. yàlla suñ borom jagleel la mhm. li am solo mooy dégg dëgg la suñu sëriñ Cheikh Moussa Cissé yàlla nañ ko yàlla fayal moom bi amiin ndax wax dëgg yàlla li xam ci tasawuf nàmp ko ci yoon wi dëgg la ci dara waxtaan ak benn waaye ne ko mu ne ko Baye Fall nga mu ne ko Baye Fall la mu ne ko kon doo julli Cheikh Moussa ko du ma sëlmal waaw Baye Fall du ñàkk julli ñàkk sëlmal dagaloon sax maanaam bul toog ci montagne bi di jëw suuf si <laughs> waaw mi <laughs> ci montagne bi di jëw suuf si parce que <laughs> dëgg la sëñ jibi dëgg la dëgg la ak am na sa am na njëriñ am na am na solo lool macha allah ba tey euh, sëñ jibi li nga leeral ci Cheikh Ibra koor am na solo lool dafa am bunt bu ndaw rek buñ ciy leeral ne maanaam njëriñal joxe Hmm. rawatina ci ab julit ndax dafa am ko xamantene ne jaamu na yalla lu mat juróom-ñaar fukki at di def lepp lu mu xam ci lu baax di ko jëf bim mu ba faatu suñ borom tabal ko ci xéewal ak mucc ba pare laajte ko ne ko ma la defal tay ci xéewal lan nga japp ne motax ma defal lako mu lim lepp lu mu doon jëf ci lu baax lu mu lim yalla suñ borom ne ko la topon nga perte hmm. bi mu ne ah man kat jaaxle naa yàlla ne ko bés dangaa xiif ba xif bi sonal la lol am ku ñew gën la xif nga yëkëti li nga warona jël ko jox ko hmm jox gi ko jox lolu mu xéewaloo ko ba nga fegal ko ak lolu loolu tey moo tax ma tàbbal la ci gi kon nak li ñu ciy déggee mooy yëkkatinam joxe maanaam loolu dara da ko ëppul doole ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na def ci benn biir moo gën tabax juróom-ñaar fukki kon nak bu Cheikh Ibra ñëwee ubbi lu mel nii tey jaamu yàlla yi di ci roy di ci jariñu ba tey fépp foo wër ci àdduna nga gis doomu di togg ay njoxe di ndogu di ko joxe te ki ko ka a def ci diine ñu xam ko xam bu biir mooy mam Cheikh Ibrahima Fall tey barkeeg jëf jooju law na fépp kon nag dañuy ñaan saa borom moomu ñuy xencu yàlla saa borom gën ñu cee xiirtal gën ñoo gindiwaat ci ay mbiram rek waaye ba tey jibi mu mel ni jotaay bee nga xëccu jëm ci jeex ndax li ñu dese si waxtu barewut waaye mënut a ñàkk itam ñu dugg ci naka la ñuy def ba jëriñu ci maam Cheikh Rahane Fall ndax dañoo gis jamono ñi ko bëgg bari na trop waaye ñii dañ koy toppandoo ci kaw forum te toppandoo daanaka bariwut njariñ li am solo mooy nga roy mm-hmm. roy ci ak fond ndax amna lo xamne boko ne ci kaw mu don maam ngi melni nga seen mak sama ñagn wala nga seen maam da sama laxasaay da nga nan ki kan nuru na Baye Fall waye ndax Baye Fall la mën nga seen nit ku la def costume ak cravate yor autom di dawal nga japp ne du Baye Fall fekk deug deug Baye Fall la kon tay ji ana naka lañu wara jëriño ci maam Cheikh Rafal ndax dañ koy roy ci aw melo wala dañ ko wara roy ci aw doxin jërëjëf yahya lajati nga laj bu ama am solo mm-hmm. te kep ko xamne ne maam Cheikh Rafal ñor na la mm-hmm. nga laj sa bop lo deug la ba xam fi nga yem ak moom. Mm-hmm. mooy melo yi kese. Mm-hmm. wala fi nga yem moom àgg na ci baatinam. Mm-hmm. wax dëgg yàlla rogalaat ba ci sa biir baatin. dëgg la su boobaa mooy jur melo yi. dëgg la waa boo seetloo tey damay faral di wax ne suñu njaxas yi tey. yaay dem ci tailleur bi rek. mu dajale. ay ay ay ay tiis yi daal la koy defal. waaye boo seetloo moom wuti naag bosam de. dëgg la bosam ci toolu sëriñam la ko fekk. seet te te bi tumuraanke lool nag. moom maam Cheikh Ibrahima maanaam lu ci xotteeku rek mu tapp ak leneen mhm. lu xotteeku mu tapp ak leneen mhm. xotteeku mu tapp xam nga mhm. kooku njaxasam daa mel ni wute naa suñu yos dëgg la waaw ci toolu sëriñ bi la ci tumuranke gu métti ci tarbiya gu métti waaye tey boo seetloo melo yi dafa yomb lool woyof lool fekk ne melo yi dafa am baatin bu ko jur bu laxas ci biir jaayanteeg sëriñam nekk ca tool ba yére yay dagg di xotteeku te faw mu suturaal boppam ci lay jëlee sagar di tax di mhm. daax rek. Mhm. fu mu daaxee daax daax daax bu yàggee njaxas maa googu di. dëgg la. <laughs> bokkul ak bii nga xam ne yaa dem téer bi commandé de. Mhm. bii woyof na lool te boo rombee ñu ne Baye Fall la ngi nii waaye Baye Fall ba pire xoolal la juróon njaxasam. kon loolu mat na cee jàngee. dëgg la la ca desaat it mooy melaw kese kese kese kese dafa wóoru. mi ngi mel ni policiers yi tey rek. am nañ melow yu ñu leen xamee yëre yu ñu leen xamee. yëre yooyu mi ngi ci marché bi dëgg la. waye dem sol ko kep kep kep taxaw ci kaw tali bi rek la circulation beeg nanga ndax tax na fayeku dede dañ na lan sax da ngay def usurpation de fonction ak ça lu jafé la ci fekk mm-hmm. ñom policier deug buñ ko yëgee mm-hmm. buñ la fekk bo xef nga am jafe-jafe da mm-hmm. mo ne xëy lu baax ngay def ci bëtt nit ñi di <laughs> <laughs> waye nang ko defee baaxul deug la kon roy melo kese kese kese wuru deug la te jaaduwul la am solo moy da ngay daggee fam mu daggee tàmbalee fa ba melo wi yegsi dëgg la su boba da ngay bolé batine ak saayir moo tax ñu ne alkaamilu man jamaa maqaama yi ki mat mooy ki boole ñaari maqaama yi boo làmbee biir fekk fa ak baay faal mhm. boo làmbee biti biit fekk fa melo yi mooy dëgg ngeen ñëpp rek kese mhm. melo yi day daal di génn di mhm. mën ngaa sol sa costume ni ñu ko waxee te fekk ne baay faal dëgg la mën ngaa def say njooñ def say laxasaay bëgga nangam nangam fekk ne ci pexe nga ne bëgg koo nuru rek ba am ñoo dóor ni ñu koy faral di waxee ci pexe nga nekk bañ jaawale laag waaj bu la jaawaleeg waa ji na nga jëm ak gaay foo xam ne bokk la fa waa ji daan jëm na <laughs> ce que <laughs> ku ne xam ne ne bu dem jotee mhm. tey Baye bi nga xam ne dañ ne ñàkk na ba kanam nga fa mhm. fekk njoñee de mhm. da fa fekk maxtume ba mën nga faa fekk kurus ba mën nga faa fekk bagage yaag yow takkaay yaag lépp mën nga ko faa fekk waaye moom nee nañ dem na dem na de ak sa léegi nag gannaaw dem na hmm. ndax yóbbaale nag Baye Fall tey mat naa xalaat hmm. melo waa ngi ñi tëdd moom hmm. waaye moom de dem na te melo wa sax gis nga balaa ñu koo jébbal boromam bari na lu koy tàqarleer dëgg la ah danañ summi yëree mhm. takk ak lu nañu tekki nangam ak mhm. nangam daal di wuti juróom ñaari mètre par car nangam ana Baye Fall ko waaw ana melo Baye Fall melo woon daa mel ni melo yi daa fu mu yem daa am fu mu am lu gën a wóor mhm. gën a loolu mooy pas-pas bi loolu mooy xam-xam bi loolu mooy leer gi loolu nag bu la niitalee fu maam Cheikh péncoo nga nekk ci ron dafa gën a wóor Mm-hmm. loolu nag moo ñuy dal ci sëñ Tuubaa moo ñuy dal ci yonent bi saa dafa am jëf yoo xam ne boo ca nekkee sax ca mm-hmm. yaag moom fii ak fañ jëm boo lëggee dëgg la moo tax maa ngi wax ci benn way mm-hmm. ne Baye Fall dëgg Baye dëgg mooy jàmbaar ju sax ci di topp ndigal du jege mukk bu wéetee bu wéetalikoo lu koy diigal cey nu teg ci ne jébbal boppam sëriñ bu mat sëriñ bu xam buur yàlla wóolu ko booleeg doyloo ko yoonam ci xiileeg xaala cey xiileeg xaala yoonam moom daal sëriñ di ko déglu rek mm-hmm. bu ne ko jaaral fii mu jaar fa bu ne ko teggil fii mu teggi fa mm-hmm. làmmiñ waa nga sax ci tudd yàlla mm-hmm. xel ma it di xalam ca pays mulkook malakoot xolam bu sell mooy alal tilim ba ñuul na woote woo leneen lu dul Baay Faal du am xayra suul xayra suul mooy ngën ji faju ko aajo kooku du yore melo wi mm. tegu ca yoon waa ko gën a wóor dëgg la maanaam yore melo wi dong mm. tegu ca yoon waa ko gën a wóor tënkuwul ci ay njooñ sol njaxas màjjaal ak gàddu kuur mhm. du ki jilluwul mhm. ma ne Baye Fall mhm. du jilluwul wenn waxtu ci bis bi Baye Fall du sëlmal bokkul ci ñu sàggan ñi jaamu seen bakkan gëlëmal Baye Fall bokkul ci ñi nga xam ne dañoo sàggan di jaamu seen bakkan ba far gëlëm bokku ci moo tax ma ne du ki jilluwul wenn waxtu ci bis bi Baye Fall du sëlmal bokkul ci ñu sàggan ñi jaamu seen bakkan gëlëmal du waa ji woorul ramadaan mhm. dundam gépp siyaam la mhm. dama ne Baye Fall du ki nga xam ne woorul weeru ramadaan waaye dundam gépp moom siyaam la siyaam mooy téye na boppam mhm. ci lépp loo xam ne yàlla tere na ko dëgg la kooku dundam gépp siyaam la ñu teg ci ne ani raza ili ca lay wéy maanaam siyaam ani raza ili dafa téye oh. boppam dafa woor ci lépp yàlla tere lépp loo xam ne ak caay-caay lépp loo xam ne mbon la dëgg la moo tax ma ne ani raza ili ca lay wéy ba mm. keroog muy xëy jot mm. ritwaan la mm. mooy jot ngërëmal ngërëmal boromam ak sa ñu daal ciy teg ne du ko joxewul asaka mm-hmm. moom daa tabe ba far jox boppam boromam mm-hmm. ba desewul dara lu muy denc ci ak gaalam parce que ki dégg maam Chara waxoon na risala mm-hmm. nay risala nay waaw loolu de waxoon ndax ku toll ni yàlla jox la li ma lépp mais séddoog moom di ko ëppale xakk <laughs> sa war a ma ne Baye Fall du ki joxewul asaka moom daa tabe ba far jox boppam boroomam mm-hmm. ba desewul dara lu muy denc ci ak gaalam du ki ajuwul ca néeg ba mm-hmm. daa wuyu ji rabba haazal bayti moom demul ca néeg ba waaye borom néeg ba la wuyu moo tax ma ne du ko ajiwul ca néeg ba daaw wuy ji rabba hazal bayti di ko liggéeyal ca toolam ya te xalaatu la génn ca biti génn toolub yàlla mm-hmm. nee na xalaatatu ko Seebra Faal nee na ñett yii la Baay Faal tigi war a doxee mm-hmm. si karturu suñ borom mm-hmm. sàmm say cër ak a liggéey joxe kiy màjjaal day faju ci ay gàkki bakkanam du ngiri dërëm sol bàyyi laat mbaa yiw teewul di Baay Faal bu ñu gërëm dëgg la mbir mi du ci col gi mhm. waxin weeg jab yu bari mhm. yëg yàlla la mhm. ginnaawal lu dul moom jokk ci ku yegg mu yeggale la Baay Faal dëgg day xam xàmmee jub xocc di ku tabe ñépp a koy seedeel mbaax akuk laab biir mag ak xale dëgg la tumuranke ak coono tayam ñoo koy xëlsee jural noflaay gu sax àdduna ak alaaxira ga ñu jëm du gis lu aay li bon kay hmm. mooy nax sa bopp di woote wooloo doonul hmm. laxasaayu ngir wéet ba hmm. mën di def sa yu bon yu jubul yàlla nañ doon bàyyi faal aqiqatan yu yiw yuy dund aqiqa ak pas-pas bu sell yoo xàmmee lii dara ak li koy nuru cey waaw li moom ndongo li alaaji bi mokk ko amiin bi jaay Cheikhuna Ahmadou Bamba xaadimu rasuulu ak bunt yoonam wi Lamp Fall ku ko wiiri doo am wusoolu ak sa macha allah moom loolu loolu moom <laughs> xam naa ne bu ñu noppee <laughs> danañ fexe nga dégtal ñu ko bu ko defee <laughs> ñu ni taf ñu jëp bu baax baax ndax am na solo loolu mbind bi ndeysaan moom it sëñ ji bi day boroom xam-xam di jàmbaar lool ci yoon wi mhm. di bind ay téere yi xam-xam ak lépp mhm. di ko wasaare ngir bëgg doomu aadama yi gën a jariñu rek mhm. ba tey ci biir wax ji ñu ngi dégg euh, yaa ngi junj ci wàllu xàqiqa nga tey jii fi mu ne boo xoolee day gis sax ñoo xamante ne dañuy bëgg doxee aw sañ-sañ. Mm. xëy na la man ci xaqi xalaane. Euh, léegi nag euh, Cheikh ñun ñëpp xam nañ ni euh, Cheikh Ibrahima ci xaqi ga wóor péng la nekkoon. waaye ndax xaqi xay képp dafa doy. ndax xaqi xay bu fekkente ni làmboowut ak maarifa. Mm-hmm. su boobaa jaam bi mën naa doxee aw sañ-sañ te fekk dara yóbbeewu ko lu dul ñàkk xam. Mm-hmm. kon dafay mel ni jaam bi day boole. chariatu gu leer ak xaqxe gu wër waaye tam na ko dàmbeeg maarifa ngir mu mun koo bijjal ak tawhid mm-hmm. ana tey cheikh euh, sa ji bi sooñ doon indil ci maam cheikh ibrahima fall ci xaqiqa tey ji lan nga ñu ciy indil maanaam rawatina moom ak dundinam mm-hmm. ndax tey jii boo xoolee li tax loolu ñu ciy appesantiru mm-hmm. mooy dafa bari jamono ñoo xam ne dañuy doxee aw sañ-sañ te nag euh, daan nañ wax ne sañ-sañ aw sànja da koy jiitu te sañ-sañ gi li ko waroon a jiitu di xam-xam ak njug ak jëfe ak nangoo topp ak wommatu day mel ni nekku fa te tey ñu bari ci kaw rek dañuy bëgg di doxe melo waaye fexe tamit gëstu lu ne ci biir jéem a xam lu mu doon ngir jéem koo dund yaakaar naa dafa ëpp njariñ kon tey sëñ ji xam naa sax du ñàkk itam foofu la ñuy yëkkatee jotaay bi ndax dafa mel ni waxtu waa ngi xëccu jëm ci jeex mm-hmm. muy maam Cheikh Ibrahima Fall ak xàqiha mm-hmm. loolu ñu ciy indil la nee sax tàbbiwaat na ci ak maarifa waaw dëgg la de ndax maam booy misaal hmm. mën nga ne àq moo ko yóbbuwoon kër Sëñ Tuubaa dëgg la ndax chariatu mu ngi fees dell ci téere yi dëgg la dégg nga daan na ko wax hmm. maam Cheikh boo jàngee hmm. loo gis xam ko dëgg la waaye boo liggéeyee Sëñ ba loo bëgg am ko liggéeyal Sëñ Bàmba nag bunt bi nga koy jaare mooy nàmp ci moom ci àqiqa aqiqa boo ko doon tekki ci wolof daanaka mooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mbir yi dëgg dëgg mbir yi mhm. dëgg dëgg mbir yi nag balaa nga koo mos loolu mënoo ñàkk a maarifa dëgg la waaw faaw da ngay xam yàlla xàmmee ko mhm. moo lay dimbali ngay mën a xam dëgg-dëgg mbir yi tey buñ nee jullee ngi nii mhm. la mooy dëgg-dëgg julli buñ nee koor a ngi la mooy dëgg-dëgg koor parce que koor mën nga ko def soo ba ngoon jot doo ci jëlee lu dul xiif di kon yow woor dëgg-dëgg defoo ko moo tax dégg nga sëñ Tuubaa wax na ci masaalikul jinaan mhm. rubba saa imin ma al jamaa laysa lahu fii si wàll ma jaa am na ku war ànd ak mbooloo mi te jëlee wu ci lu dul xiif kon kii daa woor ci kaw rek mhm. waaye dëgg-dëgg koor laalu ko laalu ko julli it mën nañ koo def ci kaw waaye dëgg-dëgg julli defoo ko mhm. joxe mën nga koo def waaye dëgg-dëgg joxe defoo ko dëgg-dëgg joxe day dellu ci yàlla moo tax àq mënta am mukk mukk mukk te yëg yàlla amul xam mhm. yàlla amul jeex te ak ci yàlla amul mhm. su boobaa moom daanaka ordinaire ngay doon dëgg la ni nga koy yaakaaree ak ni muy doonee bokk mhm. dañ ne lu yëngu lu ne la yëngal moo ko doone te yëngu bari na lool waaye liy yëngal kenn la mooy suñu borom subhaanahu wa taala boo xasee ba daj nag ba gindeeku ci moom jeex tàkk ci dëgg-dëgg mbir koy mën a dëgg la te dëgg-dëgg gu ne da lay tegtal geneen dëgg-dëgg dëgg la moo tax nga dégg saatu faat naasir xaq biir xaq moo dimbali dëgg ci dëgg mu mel ni ñaari dëgg te dëgg leen la war a doon yees di laaw li nuuri man yasha nuurun ala nuurin googu mm-hmm. moo tax maarifa néew na nga dégg ñu ne lii mooy lii mm-hmm. bokk na ci ni ma ko déggee mm-hmm. bokk na ci ni ma ko gisee bokk na ci ni ma ko xamee rek ndax noo ko xamee tey bu subaa mën nga koo xamee nu gën a leer fekk na la nga xamoon démb lu leer la waaye tey daa gën a leer nag ak saa moo tax góor yàlla yi dañ koy faral di junj nee nañ nit ki dina tuub ñaari tuub bu njëkk bi mooy tuub bi ngay jëf maanaam li nga doon jëf say cër ak wax ak a def loolu dañ la naan da koy tuub mm-hmm. waaye jàmm bi am na foo xam ne bu fa xuusee mm-hmm. dina tuubaat geneen tuub bu bokkut ak tuub bile tuub boobu mooy lan mm-hmm. tuubu bàkkaaruk am gi mu foogoon ne moom dafa am ak li mu foogoon ne moom dafa nekk te nekkul ndax boo xoolee Moussa bi mu ne rabbi arini unzur ilayka boo toppee aaya bi da ngay dem ba ci biir dégg mu ne inni tubtu ilayka mhm. mu ne yow yalla ma ngi lay tubal te nenañ musa mahsum la jëfut dara ci sharia lo xamantene ne war na koo jural ak bàkkaar mhm. waye tub bobu moy tubu la nga njotto nak la nga fogon te duko te lolu ku amul aqiqa mhm. mënoo ko xam deug la motax bala nga doxé sen sen sen ya da ngay fexé ba am sen xam-xam ya deug la bo amul sen xam-xam ya doxé sen sen sen ya ya ngi melni ki ñawlu tërëy bëgg def ni militaire wala bëgg def ni policier fa ne waaye xam-xam ba fa leer ga newu fa jaar-jaar ba newu fa moom la sëñ bi di wax fay ne isir tiyaadun max irshaadi xam loxumaa min jaalibaatil xuróo max shaqawaati dafa leer warul rek lay jur dëgg la kese mhm. sañ-sañ moom xam-xama koy jur dëgg la ak jaar-jaar boo xam ne bu tege ci yoon la bu loolu amul mhm. du sotti dëgg la su ko defee kon aqiqa ngoog mhm. xam-xam bu mat a xam la bu mat a gëstu ndax moo lay leeral mbir yi sëñ Tuubaa daan na wax ne moytu leen di gis seen bopp mhm. ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer mat la te ne safaan ba fenkee ci laa xam ne ndekete yàllaa fi nekkoon di jaamu bopp yàllaa fi nekkoon di tudd bopp <laughs> loolu àq moo la koy may doo gis sa bopp ci dara. Ah. parce que mënoo ko. Ah. ndax feeñu gi la ak feeñu. feeñu mm-hmm. xam ne kon olof bu ne lu yëngu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole. Mm-hmm. ah da xam ne yàllaa fi ne di yëngu nag. dëgg la fekk sax loolu boo ko yëgee loo fi naqari du am. dëgg la waaw faral bu la mm. mm. naqari. dara dara du la naqari ah, dëgg la gaa baax yëpp fa la ñu nekk. dëgg seen xol ci féex sax yow nag la sa xol dul feex ba nga naan da ngay diingat ak da ngay nanga te sax dañ lay far yërëm far ndax fi nekkoon boo fa ne tal leneen ndeysaan kon yàlla ko yàlla fayal mun ngaa kiiwaale tàgguwaale <laughs> sax tontu waaye laaj yi la mhm. waaw ndax laaj buntu xam-xam la te mhm. kii laaj boo dégloo li nga xam ne borom xam-xam la mhm. su ko defee nag niñ la ko waxee rek cofeel ci maam Serigne Fall moo ñu wommat waaye xam-xam bi taxu koo am solo parce que waaye cofeel gi moom mate na sëkk sëkk ku mhm. am cofeel ci moom la mhm. te li ko ko may mhm. ci samay morom yu bari ñu bëgg ko moo ko liggéey dëgg la li ci des nag mooy ñu bañ a yem ci cofeel gi rek ak bëgg gi rek waaw gëstu gi da ci am solo dëgg la mbir bu la soree ci xol da koy gëstu dëgg la boo ko gëstoo mooy tax nga mën a sàmm sa bopp ba ni ko bëggee fii ni nga nekkeek moom fii di ko dund bés bu dee dikkee it boo demee nekk ca keppaaram nekk ca peggam te suñu tuwi daan na wax ne li wutale àdduna ak àllaaxira mooy àdduna dara jojoo mën a am mm. teewul ko lu bëgg gis mën na laa gis mm. waaye yow man xiyaam ña bokkoon la def képp ñoo koy gisante kon pas-pas moo lay boole ñoom foofu mm. sellal moo lay boole ñoom foofu doxin wu tege ci yoon leer naññ moo lay boole ñoom foofu yàlla nañ ko yàlla taw fii xal lay sant bu baax yax yaa di ñaan suñu borom doole ak wér ci weeru koor wu tedd bi nekk di nuyu di siyaare sama waa daar masagul xudaa ñaanal suñu bunt ci yoonu sang bi la sant bu baax a baax a baax nag wax dëgg yàlla jotaay bi sant nañ ci bu baax xam-xam bi rafet na laaj yi macha allah mhm. taalibe gi tubaarkàlla ok macha allah jërëjëf ñu itam soxna Aminata bi Baye Diallo ndeysaan soxna Alima <laughs> jàmbaar la ndeysaan jërëjëf jërëjëf Yaxya jaajëf jaajëf fi mu tëjee kàddu gi foofu la rek mag ñi dañ naan bant du yàgg ci ndox ba soppeeku doon jasit Cheikh Abdou Khadir Mbacke imaam daan na wax naan bu sëñ Tuubaa dee géej it euh, fexeel ba doon ndox buy far yóbbaale la waaye bu sëñ bi dee géej nga nekk leneen bu dee farit bàyyi la fi kon nag liñ ci war a déggee mooy Cheikh Ibra du ku ñu war a yéem waaye ku ñu war a gëstu la waxam ko jéem a xeeñ ci aw mbooram ndax loolay tax ñu jëriñ ci sëñ Tuubaa kon bu ko defee sëñ ji bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité bi wax dëgg yàlla jafeloo ñu ko benn yoon fi mu ne daa dog ay itteem ak léppam ñoo toog def ak ñun jotaay daa yor daara di jàngaleeg yeneen yitte waaye teewul biñ ko nee jotaay yi dañoo bëggoon waxtaan ci maam Cheikh Ibra rek daa dog ay yitteem ñoo teew kon nag bu ko defee ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan saa borom gën a yokk xam-xam bi barkeel ko te yéene bi nga am ci toolu Cheikh Moussa it yàlla defal la ci lu kawe ak njot su ko defee ñu ngi siyaare ñu doon teelu ñëpp ci Bichri TV di dellu ñaanalaat tey siyaare suñu wasila sëñ Abdou Samane Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wër di siyaare mbooleem ay jëwriñam ci demee ni jëwriñ Alioune ñoom jëwriñ Adama Doumbé ak ñoom jëwriñ Tamsir ñu ngi leen di charré bu baax a baax di charré mbooleem ñi nga xamante ne ñu ngi topp jotaay bi di péncum xam-xam waaye di charré itam waa kër gi di charré tàmbalee ca bopp sëñ ma jama ba ci man mi gën a ci ndongo yi waaye di charré itam soxna Alima mi nga xamante ne ci kër gi la nekk moo ñu yombalal lii ba tax ñu mën a toog ak sëñ ci bi dafa ak moom ak jotaay di charré sëñ Abdou mi suñ jëwriñ ci kër gi ak ñoom demb ak ñoom Lamine ak ñoom sëñ Xaarim ñi nga xamante ne ñoo féetoo wàllu technique beeg kon bu ko defee ñu ngi ñaan saa borom defal ñu kàttan ak tawféex ba yéene gi ñu am ci jotaay bi yàlla def ci lu kawe njot kon ñu ngi ñaan saa defal ñu ak dégg ak topp kon sëñ jëbi bisimilah defal ñaan déet Fall yi yaay sama sëriñ jaaral También se La ilaha illallah